laaj na nu gën a delluwaat suñu borom nag eh, te eh, sunu lay nga xam ne moom lañ jiital ci suñu diggante moom eh, ci toroxlu ñaan ñaan ko moom mi nga xam ne moom mooy dafa ko dindi mu def jàmm gën def jàmm ci xol yi gën ko def ci xel yi gën koo def ci yëngutu yi kon nu gën a teewlu rek gën a toolu jàngal xuraan nan ko daa defee rek démb barki démb na ko kilifa yi daa santaane loolu ko dénk dina ko saa nañ ko war waaye nu def ci nu gën a teewlu gën a toolu gën a delloo suñu bopp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 Euh, ñu ñëpp teewlu kenn ku ne ci noonu rek euh, ñu delloo boppam moom ci yàlla euh, arab mu jàng mu fas ca yàlla may nu defal nu jàmm ci xol yi nu jàmm ci xel yi defal nu jàmm ci réew mi hmm, loolu ñaan nawet bi itam jege na gën a ñaan suñu borom gardu nu ci ak xéew xéew xéew